jëmee ci yàlla muslikatun dalay suuf ila rahmaan yi jëmee ci yàlla jaani xam jaani mooy firi jaani mooy firi tooñ kat waaye sëñ am bu ko daan firi jaani yow yow ni leen di teqale la koy firi <laughs> te suñu maam si aw xadim yi radiyallaahu anhu loolu la bind wa kullu wirdin yuridu murida li xadratillaahi walan yaxiida nee na tariqa wirdu woo jël dañ ko bàyyi ni melal ko wirdu woo jël te respecté ko mu yóbbu la ci xadar yàlla سواء سلالة خيجيم تماوي يقول إلى الجيلاني شهلة تشتي أبلغ شهلة الجيلاني أبي تما ولا قبير لأحمد التجاني لشيخ أحمد التجاني أو لسواهما ولا قبير keneen ku bokkul ci ñoom ñaar min al aqtabi ci buriya iz ndax li fi nekk kulluhum ñëpp xataan ci lu dog ala sawabi ñu ngi ci jub ngi ci ñu lok te Cheikh Saadu Abihi radiyallahu anhu da nga foo tudde ñoom ñu ni ba xëyal waaw mooy mooy tànn naa ko Cheikh Saadu Abihi radiyallahu anhu waaw yéen xam naa Italie moom benn défaut am nañ ko mooy waxtaan xaw ma dañuy namanti ko mooy tax waaye bu ñu jógee ci jotaay yi daal chee dañuy waxtaan rek waaye maa ngi daaneel sax ndax yéen a war a waxtaan ويشيخ سادو ابي رضي الله عنه دفن دجيك سيد الحاج مالك رضي الله عنه بني جولي عيد يعني بنوبي سيد الحاج مالك جيل كيت مسلام عليكم هجه العشق والود قدم حتى قدرا عنده المسك والورد mooy jàmm nuyoo boo xamante ni cofeel moo ko yëngal ak mbëggeel nuyoo boo xamante ni dëgëreem dayoom maa ngi koy natt ci parfum ak ward nuyoo boobu laa la jox yow Cheikh Saadu Abihi juzitum kufitum ahla bayti rasulina fa minkum xatta alxayratu walrushdu wa saadu juzitum kufitum ahla bayti rasulina يالا لين يالا فاي يالا يالا فيغال لين اي تي يالا بروتيجي نا لين ناخ بيماي جانغ ليغي محمد اشرف الاعراب والعجم جانغ نا نياري بيت يا اهل بيت رسول الله حبكم فرد من الله في القران انزل imaamu Shafii yi dafa wax ni yéen waa kër yonent bi sopp leen farata ni ko yàlla digle ci alquran yakfiikumu min azimi alqadri annakumu man lam yusalli alaykum la salaata lahu doy na leen cër daraja ku julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa te waxoo wa alihi am na nit yàlla yu wax ni sa salaatu doxul man lam yusalli aleykum la salaata il faut nga indi wa alihi ak ay ñoñam ndax lu yonent bi ni laa asaluku aleykum ajran illa al mawaddata fi l leen rek laa leen sàkku ci yéen mooy ngeen soppal ma sama ñooñ si la Seydi Hadji Malick la xamuloo dangay topp maamam ba ci Faatumatu bintu Rasul waaye daf ko nëbbu daf ko nëbbu waaw Seydi Hadji ni Cheikh Saadu ci yéen la tukkee njub ak texe parce que yonent bi mooy seen maam ah dal di ni ko aya saadu saada diini shams zamani ee yow sa saadu abihi saada diini yaay texek diini shams zamani yaay sa jantu jamono fala zala yarwi mi manahilikal wardu sa teenu leer bi ngay wëgg taalibe yi du deey fee buf fii ba bufta diwal Cheikh Saadu Abiy radiyallahu jël kayit ga wëlbati daldi ni ala faiqil aqrani maliki dëhëri dégg nga Cheikh Saadu Abi Seyda Malik ni ko ayaa Saadu Saada diini Seyda ni ko Shamsa zamani yi yaay sa jantu jamono Seyd Cheikh Saadu ni ko ala faiqil aqrani maliki dëhrihi kee ni ko yaay sa jantu jamono kii ni ko yaay yilif sa jamono yow mi moom sa jamono mbaax waaw bagaanu teraanga dañ koy puusante ba mu toj kon di ko jox sa moroom ñun nag koy xëccoo ba mu pour xañ ko sa mu ni bagaanu teraanga mag ñi dañ koy puusante jëlal jëlal jëlal jëlal ba mu toj ñun nag dañ koy xëccoo di ko xañante ba mu toj xam nga xabu almutahabuna fillahi ñi soppante ci yàlla mooy ñi xare ñi doon xare te xare bi metti ba benn gutt ndox rekk a fi nekk te ku ko naan sauvé kuñ ko jox nga ni joxal diw moom laa ko yéene ñi koy paasante ba ñoom ñëpp mar wi rey leen ñu dee bàyyi fa gutt ba ñu ni ñuy njëw ñoo soppante ngir yàlla kooku du xañ jullit piir mayu keneen du xisan xolom أقولكم مالك دهره يعود سلام طاب ليس له حد yaa ngi may yónnee nuyoo bii de waaye man it delloo naa la nuyoo boo xamante ni laysa lahu xaddu amul limite fa in takun il ashraafu xaazu saadatan wa saadan min al muxtaari wala wa saadun min al muxtaari ma mithluhu saad mu ni juddu di sëttu yonent bi day doy na ci cër waaye li tedd nga googu deret di rëy rëy rëy tedd nga jikko ak njub moo ko gën te yow Malick day danga nëbb fële tedd nga deret rayante def tedd nga njub ba koo àndal njub boobu tedd nga nag moo gën fa malikuna almashhuru xaasu saadatan fa naana maqaaman doonahu nisru wa saad mu ni ñi topp Maodo de am nañu njub goo xamante ni kawe na biddiwu saad ak nisu mais xoolal li mu fi l ilmi xayru madaaris wa awraaduhu fi dikri ما مثلهم بلج ولمدارسه دار سيد الحاج مالك في العلم تي جانغ خم خم خير مدارس موي گن جي دار واوراده اورادي موي دف te mooy laasim fatiha benn astaghfirullah téeméer salatul fatihi téeméer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 ولكن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم باي صيغه تجي بو جولي سي يونتي بي رك شيخ نانا باخنا واي فا امل او امل افضل بغن نك فقل صلاه فاتح قد فضل دانيو غنال صلاه الفاتح باسكو بن يونو صلاه الفاتح اوبنا دولي صلاه يجي بن سامبل 60000 فوا benn yoonu salaatu sirri ñu ngi ko tëgg salaatul fatihi ëpp na doole salaatu boo simple salaatu fatihi simple soixante mille fois moo tax Cheikh Saadu Abihi di laasim boobu nga def ko cheikh bi bi nga xamee ni nag yeneen ci bi wax na ko gënal ci salaatul fatihi ci la rocci salaatu boobu duggaat salaat roof salaatul fatihi nga door indi laa ilaha illallah moo tax wal wirdu qul salaasatul miina takfi ida laazamtaha al mauna Seyd Xaj Maag ne werd wi ñetti téeméer la te dalay fegal coono te mooy te mooy rida radiya tut ñetti téeméer gis nga ñetti téeméer yooyu ngay def mooy nga ni mooy ngërëmu yàlla ra 200 daat 90 mooy 290 yaa 10 muy 2 muy 300 te mooy maliku xaqu mubiinu ci la ko yonent bi tëkk maliku 90 xaqu 108 muy 198 mubiinu 102 muy 300 di téeméeri istixfaar téeméeri salaatul fatih téeméeri laa ilaha nga dóor sa wasifa bi parce que tariqa bi maa ngi koy wax léegi benn xalif yi ma ni ko ah dee leen parce que adamu tarkil wirti tahawunan maanaam doyadal wirdi bi boo ko ñaanee ba noppi doyadal mu doyadal nga doyadal ko doo ko def da ngay dog laa yanfaxuhu illa tawba wa tasdid inda ahlihi da ngay tuub te yeeslu man de ànd naa ak al amin radiyallahu ñu dem Espagne am yenn njaboot yoo xam ne ci aw lañ dëkk am ci ku ko ni man di papa diw di diw bii de boo bànkee daal wérut su yorul xaalis bàyyi bu yore xaalis bàyyi su ñab dina ko ah kooku adamu tarkil bi di taxawu na parce que da ko doyee dal da ngay dog mu ni keroog bi ma ñëwee de ma ni ko ah góor gi de am na ñoo xam ni defe nañ ni yéen seen cër ci tariqa bi tax na man ngeen a bañ a wirt wasifa wala xadra wallaay maa wax mu ni ma ngoonu aj mu ni ma ajjuma bi ma ñëwee di fekk sëñ Babacar di añ ma dugg mu ni ma lan la maa ni ko dama ma tàllalal nee na def loxo parce que sëñ loxo la daan lekke te day sukk ay wóom jàpp bool bi nee mu tëye sama loxo nii def ak man mu bàyyi jaayante bi mais may dem sooda sukkar ni ko doo ko jox charte mu ni ko xam na ko sëñ Abdou wax bi lisaanihi ni ma keroog ba ma defalee loolu ba nëg ni fàttalikuwuma fu ma amee boro wértu wala boro wésifa <laughs> waaw fatiha benn al azim alladi la al hayyul fanweer salatul fatihi juróom fukk laa ilaha illallah ñaar téeméer jawharatul kamal fukk ak parce que Seydina Cheikh avant jawharatul kamal di ñëw ah ngeen baal ma mbaa foosi ma seeni ah avant jawharatul kamal di ñëw xam nga nu mu daan wazifa fatiha benn maa ngi daal man dama moo tax ma dugg sax waaye nag xam naa am na ñu war a wax gis nga cheikh bu daan wasifa wasifa na ay at jawharatul kamal ñëwul day jàng téeméeri fatix day jàng fatixa benn astaxfirullah al azim alladi la ilaha illa huwa al xayul qayum téeméer jàng téeméer salatul fatixi jàng laa ilaha illa llah ñaar téeméer kooku mooy alkayfiyatul asliya bi jawhara ñëwee nag ci la ko yonent bi daggaloo soixante-dix mu des fanweer mu teggi juróom fukk ci téeméeri salaatul fatih mu des juróom fukk mu teggi téeméer ci laa ilaha illallah mu des téeméer fukki jawharatul kamal ak ñaar soog a moo tax cheikh dafa wax ni xam naa ngeen baal nee na ki may jam di jam wasifa bi mu ne mu ni xamul ni yonent bi lay jam te yóbbu ko xam nga fatiha est que tijaan yi yéen a ko moom moomu ko yéen a jullit yëpp ko moom kon Cheikh nee na tegal noonu su la neexee ku la xëccoog yow bàyyi ko foofu mais astaghfirullah al azim la ilaha illa huwa al hayyul qayyum jox kon fanweer la salatul fatiha ku la jox cheikh lu juróom fukk la ilaha illa allah yàgg jullit yi bokk bokk buñ ko xëccoog yooyu tegal jëmratul kamal cheikh la ko jël léegi fanweeri istighfar bi siixateel xayil qayyum ak juróom fukki salaatul fatih lu mu la jox du 80 ah fukki jawhar ak ñaar ñëw lu mu la jox du 92 mooy Muhammad mooy Muhammad ci la ko tënk jar na bàyyi xel de. parce que même si le Hadji Malick su la nee sa kurus gi sa kurusu sëriñ bul xëj bul ko laal te joxu la ko laa am yowman ala sajadati wajtani bi subhata min mahabati Seydi Hadji ma ngi na sa sa sëriñ bul bokkoog moom si jada bi xol ni bul laal kurusam te joxu la ko waaye léegi li xew lëgg sëriñ bi defa ngeen mo moo lay tax def talibi parce que kurus gi man de maa déglu jottilil sëñ Abdou Aziz te yaakaar naa lu ma wax ci moom war nañ koo gëm maa ko jottilil mu ni góor gi Moodu Sall rakku Alaaji Maxtar Sall la moo daan jàngale siira ci jamono Seydi Hadji Malick su gàmmu Tiwaawan mësaana jot bu Maodo fanaanee ci jumaa ji mooy fanaan ci zawiya mu ni góor gi Moodu Sall dañoo ñëw ni sëñ Babacar góor gi Moodu Sall dafa faat mu nga seddu guy sëñ Babacar ni déedéet faatuwul dafa am lim bu mu jàng ci say fii moo ko écrasé daal di sëñ ab bi jëlal sama kuus moom sëñ Babacar soo demee tàmbalil ci boppam ba ci weewu tànkam nga raay ko sëñ Abdou nee na ma ñëw tàmbali ci bopp góor gi mot sall fekk mu sedd guy raay ko ba ci weewu tànkam mu ne foo jóg toog xam ne kurus boobu bokk na kurusu Amadou kenn mbay moo tax parce sa kurus gi allahuma la gis nga lii mooy lii fu allahu ah allahuma du ñaari laam la du fanweer ñaari laam yaa ngi ni lii fanweer la lii fanweer haa bi du juróom la mooy sa juróomi seet yi miim du 40 la lii ñaar fukki yi mooy ñaar fukki mooy 40 allahuma lañ ko tënk moo tax mu ni ko wa awraaduhu fi dikri ma misluhul wird mu ni bu dee wird rek ci sikar kenn meloon ni ah ngeen baal ma man sa tartar na waaye eh, ma bàyyi leen ngeen dugg ci programme bi waaye nag mënta ñàkk ndax xale yi il faut ñu wax ak ñoom waaw ndax li xew dafa bari te léegi boo jàngalul sa doom am ko ko jàngal ci net bi astaghfirullah alladi la ilaha illa huwa juróom-ñaar foofu la ko jëlee te yaa koy defal kër gi tari na si moom juróom ma sama borom juróom-ñaar fukki alquran bi wax ni soo leen jéggalu loolu ñoom yëfari juróom ñaar fukki yàlla du leen jéggal su sant boobu la am digal boobu moo tax yooyu yëpp dañ ko war a gis ñun nag dëgg suñu sëriñ moo ñu gën a xam ne li mu bind ak li mu fi mu jaar buñ ne seen seen Babacar Mbaye waxu daal Cheikh la ci def la ñu mari seen Touba Mbaye waxu tey لسيد حاج مالك بن تبني ليس التزيس حتى يعتبر بل اتباع الشيوخ الاخبار لان الكوز برافيل حق سانسي الذي حدد اتباع قرن الاخبار سانسي رك يتيجي على الاخر سانسي لانه هو في بوبري لان سانسي هو يكتب في بيتاني كابيتال لانه هو يكتب في وزير لا لازم تقوى لا لازم هو li Cheikh Ndakpa woon kat fii dana doy li taalibiha ci sàkku gi dal mën a fi ci njëriñu fi dunya wa uxra tabaraka ak ngébbaan ñu ñaan xalifa bi yàlla bàyyi nañ ko fi te mu ànd ak wér mu ànd ak ñoom booy ubbi jumaa ji ak njabootu moom Seex Seydi Xaaji Maalik ak mboolem mbokki jullit yaakaar naa ne fii ci daara bi doon commencé nañu programme bi di ko laaj booba léegi ci digal président fédération la Tijaniya. di Seydi bi toog ñu koy laajte pour la troisième fois wante euh, pince yi xam ne moom la préparé woon pour jumaa ji am na ci yoo xam ne dix euros lay jar am na yu jar euh, vingt cinq mille xaw euro la mooy bii ma takk nii moo nekk nii bu defee dina am léegi kenn ku jóg jox mbooloo mi képp ku bëgg participer ci jumaa ji rek occasion la pour nga mën ci participer bu ko defee incha allah ñu ñaan rek ci euh, waa daayira bi kenn ñëw jël ko bu ko mbokk taalibe yi ci bëgg a participer ñu mën ci participer waa ñu joxaat sëñ Doudou rek mu continuer bu defee ñu wéyal programme incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa programme bi sax dañ koy tënk ndax guddi na te li ñu fi jot a dégg yaakaar naa ni sax la ñu doon wax ne bu fi amoon mu neex ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam di ñaanal mbokki nga xam ne déplacé wu nañ ba ñëw ci béréb bi ak fu ñu mën a jóge di jiital ci nuyoo bi ak jaar bi Seydi Aboubacar Sy Mouhamadou Mansour xalif général des Tidianes di koy ñaanal gudd fan ko ànd ak wér ak mbooleem njabootu moom Seex Xaaji Malick noonu tamit lañ koy ñaanal mbokki kilifa diineem yi nga xam ni ñoom la nekkal ci Sénégal yëpp mboolem xalafaa yi ak mboolem eh, bëgg a tënk rek Eh, wante lu mënul ñàkk la ndax programme la te nag lu mel nii soo ko wootee sa ay mbokki jullit déplacé wu kenn ku ci nekk ak coono ba mu ca daj ba agsi lu mu néew néew war nañu leen feeñalal suñu mbégte ci turu président daayira bi président Habib ak mbokki taalibe yi nekk ci daayira bi yëpp eh, xam naa wax dëgg yàlla comme ni ko ni ko suñ tur waxee rek ku gis bande annonce bi nga xam ne PS am na particularité particularité bi nag mooy kilifa yi fii nga xam ne ñoom la am ñoom ñoo dox doxin boo xam ne ñun taalibe yi ñu def leneen lu dul def li ñu taxawee ndax daayira bii di daayira Ridwaan eh, bi ñu koy sas ca 2001 yàlla dafa dogal xalifa bi moo fi ñëwoon tudde ko daayira Ridwaan fekk fii fàtte xel Bichri bu moom Serigne Touba yaakaar naa ni histoire bi fi mu jaar ba agsi du jaar ñu koy wax ndax euh, temps bi duñ ko may. wante damay wax ni mag ñi lépp lu ñu wax rek war nañ ko seetlu te mooy li seen duudu doon wax rek mag ñi seen bind war nañ ciy bàyyi xel. tur yi jox tamit daayira yi war nañ ci bàyyi xel ndax Mafatihul Bichri yaakaar naa Seyda Soxna Kayre dina expliquer soxna yi lan moo waral tur boobu ak lan lañ ci mën a jële waruñu ko nii rek pour wax ko daairatu ridwaan tamit li ko sax si Babacar Sy di joxe yaakaar naa ni euh, am na tur bi lu mu ëmb waruñu nekk rek ay mbokki taalibe yoo xam ne dañuy ànd di dem daa daayira rek mu yam ci war nañ àgg ci nekk ay ridwaan yaakaar naa ni loolu am na lu muy signifier wante pour ba a guddal rek ndax am na ay mbokki taalibe yu fi jël kàddu te li Serigne Doudou doon wax doyalaguñ ci doyalaguñ ci way yi wante dañu kontaan ndax daayiratu Mafatihul Bichri bi nga xam dañ leen parrainé bis bi yaakaar naa ne seen présence ci saal bi ñëpp gis nañ ko euh, ca président ba jawriñ jë di sëñ Modou Bara Sylla sëñ Sidi Ñaan bi nga xam ni moom lañ délégué woon mu jox imam Makhtar Cissé euh, xatma bi mu jàng ko ndax kaale euh, kaamel bi ñu defoon pour jàngal suñu mbokki taalibe yi fi jóge euh, yaakaar naa ni loolu depuis taaw ci première édition ba léegi ñoom la ñu jagleel kaamil boobu muy dëkkandoo bu rafet loolu nag bu ngeen fi teewee nag ñëw teewal fi xalifa bi teewal fi xadara bi bu ñëwee war nañ leen ko wax pour bu ngeen di dem ngeen xam ni li fi mag ñi bàyyi woon xalifa bi lim fi taxawoon mu xam ni dara yàqoogu ci ndax xalifa bi daf fi ñëw benn at ñun ñu ko di ko jox compte rendu ci ñëw sëñ Maam Mbàkke wax ko yóbbante yi mu yi mu yóbbante ci moom mu ñu mu wax ñu lu bari ci moom ci digganteem ak sëñ Maam Mbàkke ni mos nañ tase sax ci aéroport daanaka keroog tuuti mu perte volam mu ne wante lool li mu jur mooy dafa mas a tasete ak euh, Serigne Mountakha Mbacké xamatuma ban aéroport la nee na fekk mu yore bagage yu bari ay valise yu bari nee na mu ñëw di jàpp ci bagage yi pour jàppale leen mu ne ko déet sëñ bi baax na baax na mu ne ko man njaboot laa comme njaboot yëpp nee na moom it nekk ca bagage ba xaw a tardé volam loolu nag ñun li ñuy faral di wax rek coono bi ci am du sax ci ñun wante nit ñi déplacé wu nga bàyyiloo leen seen ay soxla coono bu leen ju taj ko ñëw kenn ku nekk indi participation waruñu ko def rek fittasu ko kenn ku nekk kontaan mu jeex dañ ci war a am lu ci jëlee te mooy li sëñ Duudu doon ñu xam ne mag ñi dañ doon tag euh, dañ doon euh, boole mi mosuñu tàggale li muy faral di wax rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam mag ñi seen stratégie moo doon kenn ku ci nek fexé ba am lo récupérer ci njabot ki indil ko yonnati bi alayhi salatu wassalam ni bo nekul murit di nga nekk tijaan boo nekkul murit nekkul tijaan di nga nekk xaadir wala nga nek layen loolu mo doon son objectif ñu fexé ba jël njabot yépp indil ko yonnati bi alayhi salatu wassalam kenn ku ci nek nak sa góor lu ci sa tarbiya kër ci ngay amé li ngay am bo defé defee pour bañ guddal top ñu ngi remercier présence bi di jiital ci nuyoo bi comme ni nga ko waxee rek sëñ Modou Bara la bu ma fàttixul Bichri ak mbooleem daayira bi dañuy bañ a lim wante bu ñu tuddee rek tudd sëriñ Sidi naan ak sëriñ Maxsa Cissé tëdd sëriñ Bouna Fall ak mbooleem yi àndal suñu mag Nogay Ñaan mi ngi toog ñu yóbbaale ñëpp ak daayira Maam Jaara bi nga xam ñoom soxna Bintu Fall ñoo ko jiite. buñ ci baat tamit ah, suñu kilifa ci xadara bi. suñu kilifa ci fédération la Tijaan ya nga xam ni moo fi teewal xadara bi muy Serigne Jamil Dieng bu Tréviso de yaakaar naa ni gàmmu Tréviso léegi ñëpp xam nañ ko ñu ngi nii ànd ak ñoom Serigne Moustapha Ngiraan ak ñoom sëñ Elimane Gueye ak Soxna Kayre ak mbokk yi ñu àndal yëpp pour tënk mais li ci gën doy waar mooy fédération bi dafa ñëw ba fédération Tri Veneto bi ñu bokk ci Veneto bi ñëwaat àndaat ak président Abdou Ndiaye ak ñoom suñu gànn gay ak ñi ko bokkal ñëpp bindoon naa seen tur mais temps bi moo moo xat donc yamatuñ foofu ci fédération bi tamit cellule bi nga xam mooy jeune Tidiane ñëwaat ñoom tamit ak seen mbooloo dafa commencé président Makhtar Ndiaye def délégation bu mag nga xam ne ñoom ñëpp seen tur bind nañ ko mais dañuy bañ a jël temps bi ñoom ñoo doon organiser même jigéen ñi ni toogee ñi ñoom ñoo ko ñoo ko choisir loolu li muy wane rek mooy fédération bi jox nañ gëdd Thiès ñun lépp lu ñu doon def benn war nañ ci dolliwaat yeneen fukk léegi nag war nañoo xam ne dañoo war a góorgóorlu je veux dire kon ñu ngi sant bu baax a baax fédération la Tijani ak ci solution yi mu am yëpp dafa commencé ca jigéen ñi ba ci góor ñi di beral nuyoo ak cant particulièrement Serigne Doudou Kenn Mbaye ak mbokk nga xam ne ñoom la àndal yaakaar naa ni buñ ci limee rek Serigne Omar nga xam ni mën nañu wax ni daanaka lii lépp moo ko coordonné ndax demoon nañ ba perte espoir ci ñëw sëñ Doudou wante taxawaayam ak pastéebam ak dalal xel yi ndax organiser lu mel nii yëgal ko say mbokki taalibe ba pare li nga bëggoon noonu dina am lu wante tout temps muy dalal suñu xel moom ànd ak Serigne Baba Diop bi nga xam ne moo nekk ni ak ñi àndal ñëpp te ñu ñëw ci ginnaaw bi ñu bëgg rek gàttal foofu wante bëgg nag sant particulièrement Thérèse ak li ko wër xel desul ñëw nañ présence ñëw nañ tamit ci seen poos pour jàpp ji bi loolu nag bu amee war nañ ko sant bu baax a baax a baax ci kanamu kilifa yi bu ko defee ñu yóbbaaleel ñu ko ci xadara ba ñu xam ne daal seen jamono yi ñu bàyyi fii seen mbokki diine seen mbokki taalibe yi ñu fi nekkal ñu ngi leen di jàppale ci côté yëpp euh, loolu nag euh, xam naa ni dina am à titre personnel rek ñoo xam ni il faut ñu tudd leen donte la duñ mën a lim yëpp Serigne Mass Ndiaye bu suñu koy jur Alaaji Ale Ndiaye papay euh, Abdou Aziz mu ngi fii moom tamit ak njabootam yëpp jàpp nañ ci bis non présence waaye jàpp nañ ci ak seen taxawaay Serigne Babacar Mbodj bu Serigne Babacar Sy Serigne Pape Niang ak seen ay soxna jógee ba moom foo ko ne ak daayira Tijaniya bu nekk Gorosia nga xam ni daayira euh, euh, Seydou Mansour Baro bu Mbuur te Cheikh Ahmed Tijani Baro nekk xalifa ba ñoom it seen taxawaay ak seen présence bu ko defee pour bañ a guddoo rek xam naa bu président jëlee moom dina gën a wax lu gën a leer li ñuy wax wante daal li ñu bëgg wax rek mooy sant nañu mbokk yëpp vraiment di leen ñaanal lii ñu fekkewaat ko déwénte buñ ko fekkee ñun ñëpp kenn ku ci nekk tal ko te man ca dara ne ko Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu doon waxee ah ñun nag Serigne Babacar Sy ñun ñëpp comme ni ko Doudou waxee rek fokkewuñ ko wante euh, wax dëgg cofeel bi ñu am ci moom mënuñu ko exprimer parce que kenn ku ci nekk am fu mu wéet ak yow am na jëflante ak yow li ñu wax nag mooy xam naa ñu nekkuñu fa di wax euh, may yi ko yàlla mayoon ak li daan def ak li mu daan jëflante mais li bëgg rek mooy jikko yi nga xam ni moom la amoon ni ko euh, Doudou waxee léegi daawul fakk jëf daawul gor du tiit ba euh, sàcc gor ñàkk ba sàcc gor dal dal dootu tiit ba fenn dootu euh, euh, vraiment yu bare bare bare yoo xam ne war waru ko def ñun loolu lañ bëgg ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel maanaam bu ñu fi jógee incha allahu def daal mooy suñu suñu euh, taxawaay yokku ci diine ji incha allahu lii nag mënuñu ko ñàkk wax parce que li tax ñu koy wax dañu dañu dañu am daayira bu ñu créé daayira bi ñu koy seedeel sëñ Doudou pour mu yóbbaale lool yàlla dafa dogal daayira bi 2001 bi ñu koy créé sëriñ Modou Bara Sylla moo jiite mu Fatihul Bisri moom sëriñ Touba moo dalal xalifa bi ci hôtel bi mu doon liggéeyee fa lañ ko yóbbu jox chambre ca hôtel ba lañ defee waxtaan wu njëkk wi ba léegi heure boo ko gisee li lay njëkk laaj mooy añ ana sëñ Modou Bara loolu pour dëggal rek li nga wax ni sa waa kër nijaay taxawaay boobu lañu am fii macha allah loo yaakaar ne defuñu ko ñun ci teraanga rek def nañ ko ba paase ko bi Serigne Cheikh génne àddina ñoom ñoom ñoo defandoo lépp wàcceendoo kaamil ñu def seen ay xasaayit ñu def sunu taysiir ñu ñaanal ko bi Serigne Abdou Aziz Al Amin génne àddina dañu def daayira spécial lañ ñëw dafee ko ci ñun jàng xasida jàng ay kaamil jël seen euh, euh, jaxal teg ko ci sama loxo ni ma li ñu war a yóbbu ci dara baa ngi nii boole leen ko ci loolu nag rafetal mënu ko paase kon loolu bëggoon nañu duudu bu demee buy joxe compte rendu mu boole ko ci compte rendu bi nga xam ne moom lay joxe en tout cas di sant ñëpp leen gërëm di sant magi daayira bi ndax alxaaji Maxtaar ñang yooyu sëñ Dudu doon wax ma nga ne toog ak sëriñ Ngañ Jóob ak mbokk ñu ko bokkal ak suñu mag suñu kilifa suñu Ousmane ñang wéradi moo taxoon mu dem Sénégal ba moo tax tey jii fekke ko wante lépp luñ fi doon taxaw rek ñoom ñoo ko daan taxawee ba tey jii alhamdulilah rabbil alamina jeunes yi commencé jël relève bi mu nekk lu am yaakaar comme ni mu amee ci fédération la Tijaniya kon nag ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm sant nag particulièrement jeune euh, jigéen ñi jigéen ñi ak jeunes yi jigéen ñi depuis jeudi ba léegi kenn demul sa kër mu ngi dem marché di dugg yi mu ngi togg lépp ñu ngi koy def lii yëpp bu mënee am ba taar bi am am na yu am am solo yuñ ci taxaw te it nag jël seen xaalis boole kook seen coono macha allah jeunes yi tamit ñu sant leen gërëm leen parce macha allah ñu ngi jël relève bi bu baax a baax a baax ci taxawaay bi ñu ngi sant ñëpp waaw. waaw waaw dafay rappeler rek waxoon nañ ko sax ci commencement bi jeunesse tijaniya ci taxawaay bu am am solo télévision bi ngeen gis ni ñu koy def ci YouTube bi ñoom ñoo ko indi ñoom ñoom ñooy liggéeyandoo ñu wane ni rek fédération bi comme ni ko président Jamil di waxee mu ngi jël relève bi jeunes yi ñu ngi taxaw. di jël relais bi te loolu dal na xel keroog rek sëñ Moustapha Ngeraan mi ngi koy wax ci euh, waxtaan bi ñu doon def ak ñoom sëñ Mansour Jabil wax dëgg yàlla ñu sant yàlla bu baax a baax te yaakaar naa ni incha allahu nii ñu démarré suñ ko continuer relève bi dina am ci loxo yu mu nekk. Serigne Cheikh nag moo daan wax ni euh, ndaw boo ko nee ëllëg pour yow la ba pare ne ko demal toog xamul lu xew nee na boo ko nee ëllëg pour yow la danga naan ko kaa ñu ànd ma la bu ko defee incha allah loolu la kilifay def ñu ngi sant bu baax a baax ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ku ñu fàtte rek ñu jégal ñu suñu sañ ñëpp ñu tudd leen. bisimilah xaaj buubu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بوكي جولي جيغلي نيو دي لن زيار يي نيب تي لن سبحان سبحانه وتعالى بولا يبال خنا دي سانت يالا دي سانت تي مولو ييغا خامي نيوم نيب وون نيو ني ويسو نيو سانت رك لا نتي مانا تك باسكو دانكو مول جوم واخنا لا ني وورون تي تو دايره بي بو باña mat na li mu wax mat na te jamono bi comme temps mu ngi dem euh, dañ koy dañuy sant gannaaw bi ñu sante ñëpp mbooloo mi fi teew ñi nga xam ne wuy si nañ ak soxna yi nga xam ne tamit ñoo taaral jataay bi euh, di leen ñaanal tamit euh, yàlla taxaw leen taxaw seen njaboot di sant nag alaaji Doudou kenn may ak sëñ Omar ak sëñ Baba Diop ak ñi ñu àndal ñëpp Euh, daanaka daal euh, mat na xanaa delluwaat kàddu gi du Diop surtout na xale yi nga xam ne ñoo xam ne ñoo yore appel di film yi nga xam ne ñu ngi koy def direct ci seen télévision yi aussi ñu comme koy defee ci YouTube bi ñu ngi leen koy xamal di leen di sant di leen gërëm di sant di delloo kàddu gi Mouhamadou Diop mu wax programme bi ni mu war a tëddee loolu rek euh, comme que kilifa yaa ngi ah am leneen lu ci mën a السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وخمنا ان شاء الله دا نيو بغون ا سيرن شيخ صادبو جاي نيوخو رك مو اوبي بوكو دافي ان شاء الله دنا جوخ سيرن باب بلان نيوول ني توت رك خاينا بروغرام بي مو خاوا ام توت شانجمان رك مي نان لا كو تريلي وون بوكو دافي ني دالو وات كاد كي سيرن دودو رك الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا kenn may ಹಿಂದೆ ಜಾಯ್ ಕೊನೆಯ ಮೇಲಿನ ರೈಸು ಚಂಚವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ఒకటి ఉత్తరాఖండ్లో స్పాన్సర్ చేసి और बढ़ता है ऐसे ना उनको को मिल मिल जाएगी man na moo tax si ba téeméer ak te loolu seen sa dama tamit Cheikh xamul nu man Cheikh Sall Salaam laa tudd sëñ si dama bëgg boo bokkee ci daayira bi ma ba partagé la ma ne ko bokk ma nañ ma ngay yit rek man partagé ma dopp téeméer te ma sëñ si Cheikh Cheikh Sall Salaam ma fay rek fonctionnaire état bi heure foofu la foofu la adaptation sa bopp adaptation sa élément dama mën adaptation mooy indi waaye bu ñu kenn ko léegi mooy ñu dafay seet li nga xam ni mooy boole léegi nit ki ci ci lu mu dugg nga xam ne saa si mbokkaay yee loolu damay béy bi mu wute ñee wax de zikr baax na wax de taalaay ajam wax de taxawaay waaye yu dina ko xam-xam yu bari bari nekk fii changement xëy changement xëy gerte boo ko bàyyee dina dem seen nguur gi lay dégg di jàngale ba mu demee daa daa am ram baaxee si mooy sama maam daa daa am yeneen gannaaw yi di dem ñu koy yónnee ndaw mu di ñëwee Mbaye damaa waaw damaa jur gi. góob yi ma gis yéen si ko gis gis ñu mel noonu su ko gisee gis moom dañu naan man bu njëkk a laal kii ma gis gis bu njëkk a laal dafa mos leen dégg. kon kooku su soobee yàlla soo soobee Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam సుమారు నేను గుడ్డేటి వచ్చి మసలసం ముబ్బట్ ñu jox sa baax baax di ko di ko bàyyi daa am mooy suñu maam moom boo ñu joxee fii ñu def tan la lay may mu ne ñu bismillah ñu ne ko papa daa am képp ku dëkk jëm seen kër gi wala xaar may ñaar daa may si si ma ñu biddanti woo soo biddantoo lu ñaaw mooy ak sa doom moo ko sa doomu mësta nelaw bay bii waaye nag yàlla ko yàlla fay yiw jooyu ko waaye maa ngi mësta gëm ko bëgg kooku bay bii la nit kooku nag soo ko amee léegi ci boo ko nee bu bëgg nga xam boo ko diggante du la xam mooy li nga xam ne jant nekk di ko soxal su sabal boobu lu dëgg dëgg nga jàngee ci yoon ñu ci man sama bëgg ci doon seen ginnaaw mooy ni Maodo nee na li leen leen tere su fekkee ca mbedd mi ndax dafa fay bàyyi bi am ndax moo gën ko woon yàlla ne li ci tey beneen ay buñ fay tëgg nee na ma xam fay bàyyi fa mbir ma jaaxal sa diggam benn ma ndax la fay bàyyi waaye nag bi ñu mëkkanti aw da xaaral sa sa peer bi atum ñam ñu mëkkanti am ay ay yàlla شريف شعبة تسرع شمتية من أخم ما جابني لولا يكثر زيجري أبغى يمر من منهم ولا يكثر شهراني أنا أظن أقوم أنا بلا شرط تريد عليه يا بني ممكن ممكن بعد هذا السلام الله يعرف الله يعرف من زوجي جي كربلاء يجري مهمة الروح هذا سبيل نعم الله رب العالمين يا رب يسكن فينا مبنى أسس سلسلة حبس منادى يسال قدام سيد بكر جميع يلا رسول الله يمكن كل من رسول الله والله مسلم شيخ تيجاني شيخ تيجاني والله مبتدئ وكنا نحن نقول لك خاصة في كل شيء كيف نسبب أمام أمام يبقى لا ولا كلام loolu lu am xam-xam la nit su ko bëggee jël jël mooy noonu def ko muy sa nawle loolu mooy tax tax nga mën koo jëriñ mu ñi ne la mën na jëriñ ci yow te soo ko jëriñ moom nga wax nga li dëgg nga xam ni moom lañ la def yes yes mu ngi di di min kan sa sulu ci Allah ndax dafa la ci la ci kan wax loolu lépp yoon di kat mooy mën na ci yàlla kenn ci amat jaay jaay sama doom nee na vraiment moo tax nga dégg ñu bañ a dégg moom sëñ Cheikh neewul boo bañ a dégg moom loolu nga dem dem la perte bi tax laa nga xam ne sëñ Cheikh waxoon boo bañ a dégg dégg dama ñu digg liggéey teg teg déggukaay ndax man sama bañ a wax ne sama sama ba dem ci Cheikh Ibrahima di ko bokk ba ne ñu ñu mën a tànn sa bind yi ngay bind fa isaa tànn Cheikh Cheikh Cheikh dina ci wàññi yëkkati ko xam tey yow ba ba bëri kër si sa diggante yàlla ana nga nit ana nga nit loolu li nit ki moo di nit ñun nit yëpp ku nekk nag yaa ngi am sa kàllaama boo xam yàlla yàlla ko mel te boo sa def lépp loo xam-xam melokaan wala yaakaar nag dañ koy denc ci seen biir bëgg di wax wax dara dara sëriñ Fallou wala lii lii bàyyi saa yi sama sa moom du ñëw la coow ci pénc mi. yow léegi ñu ñëw coow ci pénc mi moo tax moo tax mu ànd nit nit ñi ñooy dem li ma demee woon yàlla yàlla tax ma wóoree leen li ma demee woon kenn kenn du yàlla ndax yàlla yàlla yàlla am mën a leen gaa yi ñu ngi gis-gis seen i saako ñëpp. maa baa Babacar ci xol bu ñu ñëw ñu ngeen xam ñu xaj fii xëy ñu xam ne te mbir mi nag jëf jëf mbir mbir mi dox dox mbir mbir mi wax wax mbir mbir mi la ko rek la ko fonk di ko dox doxe di ko wax waxe waa ji jay kon bu ñu wootee tàkkusaan sa gii gii dajale ñu bokk yu ñuy ñëpp ñu teew teew te njëriñ njëriñ li yàlla yëpp moo xam suñu moo xam ci yàlla moo xam xaalis moo xam xay lay mooy li daal asamaan yi rek lañu lañu wax ne bi léegi jaam ndax wala fi waa dugal lay lay ko yàlla ne lu am luy yësi sama ngërëm la ko mu échec kon ñu tuddee daal di tubaab ngir boo ngeen topp ngërëm mën yàlla yàlla ci coow ci fay fay ngeen def ngeen def baax ba tax baax bay bay ci ma sëkk sëkk kon ko do ko ko fa dem jëpp ñu réer réer loolu la sama sa ina sina ci def def bare bare bi def ni bay bay ci yow nga bay bay ci ñoom ba ku ñu fi ñoom la nga leen wax do ko koy wax loolu mooy ñaan jël nga xam ne suñu tin wala sina sina ci bay bay ñor ko ko ko ci def sëñ dama ne ko ñu ko ñu fi ñu leen wax ne moom la toog

جامعة ويوم يرتاح أدعوك جامعة من ليل الله خلق الله الأحمد فيها لشهوده محمد صلى الله عليه وسلم في عالم الملك والأرواح جامعة للروح والجسم أساسا الكريم وخلق نفس العاقبة الأنبياء لنوائهم وقد تظفر وقتل jot mi di ko génn teg ko ci taab wër ëtt xaaru xam-xam la ñuy wax te alhamdulilahi si ijaay wala xidan mi mitti naa ba di sax waaw yow moom la tàmbalee woon sant yàlla mais li mu def ci dënn bi def ko faneen dama ko def faneen daa koy sant loolu wax leen li xew am de daa leen wax ngeen xam lépp rasulillah li ngeen war a xam moom dina jëriñ ngir wax ngir ngir ngir tàmbali mooy te daal du ca des ba set comme ñu góorgóorlu ci njaboot nit lu mu bëgg a jëriñ da koo war a jaral coono Cheikh Abdoul Aziz Al Amin rahmatullahi alayhi daa xam ne Sëñ Si nee na nit li mu nekk la ca bokkul lu ma ko jaral ngir loola yàq na ko jaral lu mu ëpp man ma tekki na ko jaral lu gën ngir loola loola jag donc waxam ja mat nit ku nekk la nga bokk la lay koy jëriñ ko ciy jëf dama ñun ñi dañoo ñu nelaw dañoo xëy suba ba ngoon bu dégg bëccëg rasulullah yaatu ginnaaw ba mel noonu ba koo moo mel noonu ci yaa ginnaaw

ay fas yi naaru góor la ñuy di ko génne nit ñi di koy yéem di daw ca mbéy mi nit mënta toog te ci dara maa ngi tënkuñu ci lii ci ak mbaax tudd yàlla xamante ci daayira yi dimbalante ku tane sa morom fa ko tane nga dimbali te nit waxul lu gën tudd yàlla kat ci kuréel daay nga xooloo nga xool dina inam taxas bi fii fa ngeen tawul fax yoo xulu boobu bi fii kulli waxti yaa ngi

waaye ñun war na mën a am ci benn baat boo xam ni werante du ci am coow bi am bàyyi ko kenn wax léegi moo di nit da léeg-léeg wax ci Serigne Touba wala El Hadj Malick macha allah sax ma ne waaw dëgg la baax nañu nag dañuy ñaan muur loo lépp nit naa am loo xam du ko muur naa am loo xam du ko muur loo léeg-léeg sa yaay taal soppu kànja bi ngay cëpp cëpp ba def lu ba doo ko ragal ñu dañuy suñu tarixa yi nit ñi dañuy pour jëfin ba dem moom borom Tuubaa ne non di cons nga si région yi ne arrivé non di cons nga dem sa sàmm ne arrivé dëkk non di cons ci say tuur teg sa cëpp cëpp la ko yóbbu ñi am baat moom teen bi joowum ñu nii ñooy toog dañuy ñoo xam ñu dara nag ñoom ñoo fekke ñoo xam ñoo defaree njëriñ sonn na àndal na ci seen biir kooku du morom bind aw kay yóbbu gerte gi ko génn nit ñi. wala ñu wax rafet di ko def di ko wax ku waay nekk wuutu ko sa morom loolu mooy jikkoy jullit wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waxfir lana wa liman min baynina nasab min jërëjëf ci boo fi diine yàlla moom loo ko xamee بعد بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا الجنة لمن أتى الله ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصى ولو قريشيا أو صريفا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسخ الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إخوة الأعزاء إخواني الكرام أخواتي الكريمات إن مجلسنا هذا إن دل على شيء إنما تدل على تقسيمنا wa mahabbatina wa ixtiraamina li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa jasa allahu muhammadan xayran xayra jasaihi bu ko defee mbokki jullit yi ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xamante ne ñoo fi teew ñëpp bu ko defee ñuy ñaan jotaay bi yàlla ko borom bi subhanahu wa taala nangu tànk yi nga xamante ne moom lañ fi ñëwee yàlla na ko yàlla def muy aw yiw defal ñu ko muy faruk bàkkaar defal ñu ko muy ay darajaat ca aljana ci barka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ne rek ñoom lañ àndal liggéey bii dañ jàppee bis bi ba tey ñépp nekk ci ku nekk bàyyiwul fa tabaarakallaahu boobu coono yàlla na bum niil yàlla nañu ko borom bi subhaanahu wa dencal ba ëllëg mu tegal ñu ko ca sun balaas yiw ya ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu xaaji duudu kenn mi nga xamante ni fa tabaarakallaahu moo fi doon jàng-jàng yu neexi léegi ñu koy ñaanal yal na borom bi subhaanahu wa gën a guddal fanam dan ko dolli wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoom la àndal ñoo ngi nuyu tamit ñi nga xamante ni ñoo bàyyeekoo waa télévision te Seydi Jamil Dieng doon président fédération bi ñu ngi koy nuyu bu baax ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoom la àndal. di nuyu ñu jóge wéccel saa ba bël saanoo ñi fa jóge ñëpp tamit ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax di am mbégte di am kontaan bu baax. di nuyu tamit sunu mbokk yi nga xamante ni teew nañ fi muy la CNES de Tidiane. ñoom ñëpp ñëw nañ ci jotaay bi fa tabaarakallaahu comme xew-xew diine heure boo xamante ne am na ci kër gi nañ fay demee di ko taxawu noonu lañ ñëwee tey ànd ak ñun suñ bis bii fa tabaarakallaahu taxawu ko la ci war lépp ñu koy doxal kon Serigne Cheikh fa tabaarakallaahu ñu leen di bëggee bu baax a baax di am mbégte di am kontaante bu baax di nuyu tamit sunu waa kër maam borom Touba yi. ñi nga xamante ni ñoom lañ àndal jotaay bi fa tabaarakallaahu liggéey bi lépp rafet ci nuyoo bi ci nuyoo boobu Baye Moudou Bara Sylla mi nga xamante ne mooy président daayira ba ñu ngi koy nuyu moom it di ko siyaar bu baax. di nuyu Serigne Sidi ñaan ak Serigne Makhtar Cissé mi nga xamante ni fa tabaarakallaahu moo doon jàng xatmu bi bu ko defee lii rek mooy ak mbokk lii mooy lu baax lii mooy li nga xamante ne moom la mag ñi bëggan bu ko defee yàlla ñu ci borom bi subhanahu wa taala ya, di gën a xiirtal bu ko defee sunu mbokk yi nga xamante ne tamit fa dan daa bokk ak ñoom jotaay bii daan ko teewe te yàlla def ñu jiituñu ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp rek yàlla na yàlla wàcce niiru ba defan tëdd ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ya man na ko ko borom bi subhanahu wa taala def te ñu ngi ko koy ci barkeb yi nga xamante ni fa tabarakallahu moom la ñuy defal tàkkusaan gi muy Cheikh Seydi Abou Bakar Sy radiyallahu taala anhu gis ngeen mbokk yi ànd ak nit ku baax rek moo am solo gis nga lu waaye def fii ci àndula ak nit ku baax rek loola boobu baa yàq nga ko xam ngeen ni mboolem lépp loo xamante ni baaximal ëllëg yowmal xiyaam borom subhaanahu wa taala daf koy soppi suuf bu ko borom bi di soppi suuf dina am ñoo xamante ni ñu nekkan ci àdduna doonoon ñu sàggan buñ gisee loolu dañuy wax naan yaa laytani kunt yaquulu yaa laytani kuntu turaaba waaye aka neexan waaye ma nekk suuf waaye am nañu ci baaxima yi yoo xamante ni biir aljana la ñuy dëkk te loolu lan moo leen may loolu mooy ànd ak nit ku baax moo leen may loolu ànd ak nit ku baax rek moo leen may loolu gis nga yonent bi ñuy wax yeneen yonent yàlla saalix keroog ba nga xamante ne ma ngay woote ca nitam ña nitam ña ni ko boo bëggee ñu gëm la montagne mais na fi ak gëléem génne yonent yàlla saalix ñaan boroomam ak gëléem génne ca montagne ma te ba muy génne dafa génnaale doom ba muy génn dafa génnaale doom ndox mi nga xamante ne moom lañ doon naane ci dëkk bi ñu ne leen bu ngeen naanee tey ëllëg gëlëm bi mooy naan gaa yi ba loola demee demee dem ba métti ci ñoom benn waay la ñëwal mu rab mu rey ko isin baasa ashqaaha fa qaala lahum rasulullahi naaqata allahi wa suqyaaha fa kassabuhum fa aqaruha waaye lan la yàlla def fa damdama alayhim rabbuhum bi sanbihim fa sawaaha gis nga gëléem googu ëllëg biir aljana lay dëkk te lan moo ko ko may mooy ànd ak nit ku baax ku yàlla gërëm moo ko ko may kon ñun bu ñu ànd ay mag ñu baax ku benn Seydi Abu Bakar Si loolu bu boobaa suñ xel dafa war a dal bu baax a baax a baax gis nga sunu maam Ibrahima keroog ba muy rey doomam ja te ndigal la ko borom subhanahu wa taala joxoon gis nga xar ma nga xamante ne moom lañ tër rey ko xar mooma fan lay dëkkee ëllëg biir aljana lan moo may mooy ànd nit ku baax ku yàlla gërëm moo ko ko may kon nit ku baax ku yàlla gërëm li ci ci ay njariñ ak am gi nga xamante ne moom la am solo kenn xamu ko xam ngeen ne yonente yàlla Suleymaan am na benn picc bu ko yàlla benn picc bu mu daa àndal bu ñuy wax Moussa Njubri yeneen yàlla Souleymane fu Moussa di dem picc boobu bu demee mooy xool béréb bi fan la ndox jigee ndax dañuy soxla ndox bu ko defee fu ndox jigee rek moom daf koy xam bu ko defee yeneen yàlla Souleymane moo gaay bi foofa la ñuy dal keroog ba mbindee leetar ba di ko yëg kañuy wax Bilqis picc boobu la ko jox moo dem ba timpale ba daal ko fay dal. gis nga moom moomu ëllëg fan lay dëkki mooy biir aljana lay dëkki lan moo ko ko may mooy ànd nit ku baax ku yàlla gërëm ku yàlla bëgg ci moom ku yàlla kontaan ci moom loola rek moo ko ko may kon mbokk yi ànd ak nit ku baax am na solo ànd ak nit ku baax tënku te la nga xamante ni moom la digle loola nekk na loo xamante ni lu ama am solo la bu ko defee Cheikh Seydi Aboubacar si nag fa tabarakallah mu mel li nga xamante ni noonu la war a mel loolu du kawteef waaw wala xarwa an yaxsul fata xaswa walidihi waaw nit boo juddoo fekk say waajur baax ñépp xam leen ci mbaax ci yiw ci xeñtu ak mbaax yow boo dikkee mel nañ mel loola du kawteef du doon loo xamante ni lu yéeme lay doon moom fa mbir ma yéemee mooy nga dikk jël weneen yoon woo xamante ni say wéjur jëluñu ko woon المولود لدو قول قديم لكم والقول فيك ظهر خليفة الشيخ والمختار يا سيمر فجال جلد أيدان طيب لخوتك tuus leen te bàkku ko bil am daay ko yooyo tuusi leen te baak bil am daaxi moo moo ko yooyo daan sa jigaa ngi te te sibit moo di mbër mi ko jar dina la basiiti bi ma di dina kamile رمين ووافر بارجس بني دي تما sabar bu muy kamaan jaar te bu muy miasaf bu muy bu muy trompette bu muy gitaar te bu muy fan falile bu war bu leen ko xiir bu leen mbalax bale loxo ca kaw bu leen ko xiinal bu leen mbalax bale loxo ca kaw bu leen ko xiinal bu leen mbalax bale tamal bale nit بلين بهدي ويكش على المستدعي فاعلا مستدعي فاعلا مستدعي وفاعلا مستدعي بسيتكي واو كيو نيدك بكباك سمر عتيقتي واو إنه ممرك من ملك فجر mooy daane deesu ko daan yaay daane deesu ko daan yaay daane deesu ko daan yaay daane deesu ko daan yaay daane deesu ko daan kii rek moo moo far far leen ci ngay sey ku ci far beerus te kenn du la ree far leen ci mbay ku ci far doorus te kenn la ree far leen ci mbay ku ci far doorus rus te kenn du la ree atrim bi waaw innahu xaqan xayru wasar buri yàlla may fi bayloo xamu ni kenn xamu ko bur yàlla may na fi may loo xamu ni kenn amu ko bur yàlla may na fi may loo xamu ni kenn amu ko bur yàlla may na fi may loo xamu ni kenn amu ko bu leen xulo xulo bu ah. leen ñaayo di indi indi naqar yaa yenn yenn bu say

بالله يا بريمر خليفة شيخ والمختار يا زيد مر زي أي فجر لنا أي دار تجيب لا خروة أن يرس المولود لدو قول قديم لكم

nee na bu doom juddoo jël tànk yooyu rek nee na loolu du kawteef kon fa tabaarakallaahu Cheikh Seydil Hadji Malick yàlla nañu ko yàlla fayal xam ngeen ni moom bi muy ñëw Tiwaawan la ko fa indi woon mooy Tiwaawan waaye ba mu fay ñëw la ko fa indi woon mooy tafsirul alquranul karim moo ko fa indi woon lool lépp nag ci la nekk fa tabaarakallaahu di jaamu boroomam bi subhaanahu ci di ko wéetal ci jàng ak jàngale loolu lépp ci la jeexal dundam gi xam ngeen ni bi nekkee dëkk ba la wax mbaakool doon fa jàng mu daje fa ku ñuy wax sëriñ Gumba Amar fekk sëriñ Gumba Amar dafa am doom ñuy wax Maam Majoor Amar ñoom ñaar ñu daje ci jàngu bi fekk maam Gumba la jiitu loolu jama dafa musa dajeek Cheikh Omar Fouti Tall Cheikh Omar Fouti ni ko yàlla na la yàlla dimbali dem ba dajale la ak nitu yàlla boo xamante ni ni nga bëgg ci sa boroom lépp dina la ko defal. doomam ñëw ci daara jooju dafa jàng nag daje fa ak Cheikh Seydil Hadji Malick bam ñibbiwaatee. mu wax ko way juram ni ko man defee ma doon jànge gis naa fa góor goo xamante ne ko daal doy na ma ci lépp mu ni ko boo demee na la jox werdu salaatul faatihi bi mu dikkee seet Seydi Hadji Malick jox ko werdu salaatul faatihi bindal ko ijaasa itlaax bi mu delloo ci way juram wan ko ijaasa bi nga xamante ni moom la ko Seex al Hadji Malick bindal mu gis ni ijaasa bi mi ngi bàyyi ko ci Seex Seydi al Hadji Malick maam an fahima yoro Seex tur wi borom tur wi mus naa dajeeg moom mu ñaanal ko ni ko yal na la yàlla dimbali ba nga dem ba mu boole la kilifa goo xamante ne li nga bëgg ci wàllu yàlla lépp dina la ko defal góor gi bi mu gisee tur woowu dafa mel ni ku nagam xamatul lu muy def ci la waxee doomam bi ñu dem fexe ba indi ko fa tabaarakallaahu mu xamanteeg Seex Seydil Haaji Maalik ñu dema dema dem ba Seex Seydil Haaji Maalik nag li ko yóbbuwoon Tiwaawan mooy firi alquraanul karim firil nit ñi téere bi yàlla bi wax leen li nga xamante ni moom la ci borom bi subhanahu wa taala di wax loolu moo ko fa yóbbu woon loolu moo nekk loolu moo nekk niteem nekkat mission bi nga xamante ne moom la doon dox ci kaw suuf ba xëy wuy ji boromam te la ko maam Serigne Alioune Guèye Guèye waxee ala yawmuhu yawmu sulasa bi sufrihi laxat baaqa xarru samsi naxwa tabarrudi Serigne Alioune Guèye nee na ala dama ni nee na yow mu bisu génn àdduna moom Cheikh Seydi Hadji Malick sulasaa nee bisu talaata la xanaa yow mu xoo yow mu sulasaa bisu ruux yi waaye nee keroog bi nga xamante ne si ruuxul Cheikh Hadji Malick teqalikoo jëmm ji nee na laxat ba paxarru ci naxwa tabarruli nee keroog dafa tàngan waaye nee na li muy tàng tàng nee na dafa jékki-jékki ñu gis ngelaw luy upp ngelawal biris loo xamante ni fa tabaarakallaahu kenn mu sëgg si limul noonu kon góor googu yàlla nañu ko borom bi subhaanahu wa taala fayal ki nga xamante nag moom la ñuy tàkk tàntal takkusaan gii muy Cheikh Seydi Abou si. ci seen maam Maodo waliyun كسوب سيد الحاج مالي دفعني نماغل منار الدين أعلى ورفعة إنالاتو عمت عموم محمدي وتسيم مامو دينو فكريو بلندم ya daan ubbi làmb di jiite jumaa yi di jiite la yaa ndeggaan yi maam Maodo formé ba ñu jiite jàkk yi jumaa yi waay ataawa bi qaaxu suudi ana soppi seen xaji Malik waay zulmun wa zulmatun fa qaama بسيف الغم بالحزم مجردي mu bàyyi fële ñëw ka jaasi jël ñëw ka xalima bind orienté nit ñi ba foo dem fekk mu samp fa Seyd El Hadj Malick ni moom fa jaahada fiihaa بالسياسة والنداء وعلمين وحلمين فاهتدى كل ما سيما مودة زوية نار زوية سمبزوية تاوان نعم. زوية دكارو ni yàlla ma jàppoon ca buumi kaaba ga ni la réew mi may ma ma liggéey la fi jàkkaati jumaa yu bari eh Priest yaakaar naa ñaan gi nangu la de fasaarat zawaaya fi quraha jamiiha mila am bi fawjin راكين وسجدي فجرتي مس جاكيتيري فجرتي مس حضرة الجمعة الله حضرة الجمعة الله جي سنغال لخمم اسبير بي وكم قال جدو تلم صلاة الفاتحة المصاف تقوم سيك الأساف مسلمين جل سيف لرمم أصدر خلدم ناصر العقيدة الفي حكم العقيدة الفي حلقة العقيدة الفي بالدبور لمر الإمام الرسول سنة له بالشريعة جل زور نعم. حقيقة يوم غصر سر تاريخ تيسنا جيب شريعة يا كخوص قال تاريخ موني فاس ودور بينو أي وروس ودي حقيقة نيقر لأصواتي في كل يوم وليلة ديو لدى كل زوايا مسيدي ومي واتريست سير ممدر كاملي ومي لفلني كمام سيدي الجميل ممر كمالي وملي بإخراج الحقائق ناصحا وملي بتدرس الكتاب ومسند ومن لي ببذل الفقه والنحو منطق بيان معانيها بدي بمسيد ومن لي بورش بل والاشعري ولا ومن لي بآداب والضرب المؤدب وملل بنجم في النجوم وموسيل سيد الحاج مالك يا مصل وصولا تريست جبلين مقال مودو يا مصل عروضا Trieste toog leen màggal Maodo yaa ma sol si ratal badri miqwade umali waay waay li neex na waay fa hmm, tabaarakallaahu bu ko defee mu mel ni kon mi ngi guddi kooku mooy Cheikh Seydil Hadji Malick ci xam-xam ci ragal yàlla ci lépp moom xam-xamam dafa muuran wilayam waaw xam-xamam dafa muuran wilayam yàlla ñu ko borom bi subhanahu wa taala fayal bu ko defee cheikh seydi aboubacar gis nga cheikh alhaji abdou aziz dabax bi mu koy way daf ko ni doo bodde doo xaste doo ñaawoo dafa jufuloo bal man attaaka nga bal man attaaka nga fat booleeg lu ñaaw nga defar waaw nee na sëñ Babacar si daawul boddi kenn du xas kenn du xuloo kenn ca bu ñu dikkee loo ñaawle ak lu mën a doon dina la fat defar la defar la ba nga xamante ni fa tabaarakallaahu yaay rew wurus loolu bu ko defee loolu la ñu ab sëriñ sëriñ dafa war a fekk koo xamante ne ku tilim la mu jël ko defar ko ba nga xamante ni fa tabaarakallaahu koo gis rek fa tabaarakallaahu danga naa est bu ko defee nag loolu mooy jikkoy yonent bi sallallahu alayhi wa bi daawul boddi kenn daawul kenn daawul xuloo kenn te gis nga lu ko waaye def rek mu baal la ko bu ko defee loolu nag ay jikko la yoo xamante ne Seydi Aboubacar mi ngi ko doon ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga nit ki nga xamante ni fu mu lu ñaaw rek lay wax ci yow yow foo toll yaa nga raxas ab dara bam set nit koo xamante ni bu doon séddale tey dala fay romb du la jox dara waaye buy joxe waaye yow boo joxe moom ngay njëkk a jox boobu jikko ñëkkul jikko boo xamante ni jikko bu yomb la te loolu dafa nekk ca Seydi Aboubacar Si gis nga foofu yonente bi def ci jàngale martaba nit fii ak demagoo ba egg foofa rek yow eggagoo loola nit def ci aw ñaawteef yow la ngay fexe mooy di ko ko fayee mooy lu baax fu mu toll di wax ci yow lu bon yow foo toll ngay wax ci moom lu rafet bu ko defee loolu mooy jikkoy ab jullit bu ko defee nag boo amee ab sëriñ mu mel noonu bu ko defee jikk yooyu danga koo war a roy ci moom moom nag jikko yooyee mi ngi ko doon de ca yonente bi sallallahu alayhi wa waaw lu ko nit mën a def ak lu mën a doon rek moom Seydi Aboubacar si fa tabaarakallaahu amu ca solo amu amu ca lu mu cay wax waaye lenn daan lay bañ ku ko laal mooy diine ji wala tariixa bi wala kër baayam gi waaw gis nga naare ba ñu wax ibnu Majaaba keroog ba mu ngàññee Seyxuna Tijaani keroog Serigne Babacar dafa def xasida ci moom waaw dal ci kawam. innamna ma yaaba yaaba allahu nusratahu allahu mawlaahu xistan summa xusraana waaw yéene ji daawul nangu kenn ku koy fowe tariixa bi daawul nangu ku koy fowe kër baayam daawul nangu ku koy fowe bu ko defee loolu mooy jukki ab sëriñ bu ko defee ab sëriñ boo ko amee nag mel noonu jikko yooyu danga koo war a roy ci moom waaw lu la nit mën a def ci aw ñaawteef nga jéggi jàll bu ko xool yonent bi sallallahu alayhi la daan dundeeg yëpp ñu neen aboo jahlin yéefar bu mag boobu fu nekk aw na fa ak yonent bi sallallahu alayhi wa waaye gis ngeen keroog ba mu gasee ak kàmb ci buntu këram yebal gaa yi ni nee leen Mouhamed damaa feebar bu ko ko waxee dina ñëw seet ma bu ko defee bu duggee ci kàmb gi ñu suul ko. biñ demee wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa gis nga yonent bi ci ak mbaaxam yonent bi dafa jug sol aw nag la mbokkoo dem seeti yàlla yebal Jibril ni ko bul dem. yonent bi sallallahu alayhi wasallam toogaat aboo jëlil fàtte na ni gasal na ak kàmb ci buntu kër gi mooy li naan néeg la waaye borom moo cay fanaan bi muy génn moom fàtte woon na ko far mu dugg ci biir kàmb gi ñu dajale buum yi nekk ci dëkk bi yëpp yor ko ko waaye gis nga buñ ko ko yoree day mel ni borom bi subhanahu wa taala day gën a xóotal teen bi xam nga lan la mujj wax yi mooy kenn rek laa xamante ni muhammad sallallahu alayhi wa

yéen a mu bi bi ci taddu te wéral ku rey ci moom danga raw yow mel doo dégg riiru safar nee roy leen ci Seydina Abu Bakar mii ndax moom defewul lenn du dul alxuraan ak sunna képp koo xam ne roy nga ci moom nee ëllëg danga raw te yow mel doo fa dégg riirum safar kon ci defa gu mel noonu fa tabarakallahu yàlla ñuko borom bi subhanahu wa taala fayal yàlla borom bi subhanahu wa taala taf ñu ci barkeem ay jikkoom boo nga waxtane fi ba suba du jeex wa fatan haza mahmudan wa mata muhammadan fa fi halatin yahdi wa fi halatin yaqri gis nga seen cheikh nana seen babakar Yeah. وفي حالة يهدي وفي حالة يقري أبونا أبو بكر وإن كان في القرية ودينا في الشيطان إلى آخر يوم أبونا أبو بكر وإن كان في القبر أنا صفي المكتوب رضينا به شيخا إلى آخر الدير لمن أنتمي إن لم يكن لجنابي بمن أقتدي إن لم يكن بأبي بكر خلالك لك جو القلب يا طير حبي فبيضي بخير وصلي أسعد الطير لطيف بما في النفس والروح ذكره وألطف منه فيما نطت ذكري سرين شيخ تجان سيني يسيد علينا أخذة وهو غائب فأكرم به من غائب وهو في الحجر عاش محمودا ومات محمدا ففي حالة يهدي وفي حالة يقري تربى على هاتين إرثا ونشأة كريما وفي هاتين رمز من السر الله إن أحسنتم غير مسلم فدونكم عهدي دونكم بسري المكتوم بلاء على أهل الطريقة سطو بقول من الحبر الذي أعظم الحبر وقنا برحمن كيد عدونا انا بي الأصحاب من قدرتي شرنا أبو بكر وإن كان في الحبيب في بشيطان إلى آخر الدور وقنا بالرحمن كيد عدونا على سنة أصحاب من قبلتي الشر سيدي شيخ داجل الخليفة أبو بكر السي حرف بني ونلفت بيت أبو بكر مني بأحمد بن يبالا بأحمد بالمحمود بالختم بالرضا وبالمصطفى بالملتقى بالهدى البدر كفانا لباس الخير أن كان عدو لدينا ثنيا في لباس من الخير رمى فأصاب سيد كل إسابتي لدس كيف لم يبقى إلا أنقى بربي شكر سماحته تغني المريدين عن ندم ربنا كان بورقته بالمؤمنين عن سيد ما طريق بي boo dee faw mu ngëb kurus gi soo faw mu jël sa loxo lay joor jàng inna alladina yubayiunaka innama yubayiuna allah yadullahi fawqa aydihim faman nakafa fa innama yankuthu ala nafsihi ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما jaayante ba yonent bi jaayante saxaaba yi laqad radiyallahu anil muminina nit ñu bàyyi roonaka taxta sajara nee na moo tax sëriñ Cheikh ni sëñ nday joor ba la joxoon ba tey moom lay beesal fii ba jamono di ja jeex yaminu kala ansa yaminaka دائما أبا الفضل ما يغير ردك من ذكري يمينك العزاء يمينك دائما

li ci baat alif araf bi ci jiitu mooy alif ñu jël ko tagg ko ni abuna abu bakrin wa in kaana fi lqabri radina bihi sayqan ila aqiri dahri ñu ni abuna sunu baay abu bakrin mii nga xamante ne mooy abu bakar sëriñ seex nee na wa in kaana fi lqabri donte jël nañ jëmmam ji ba rob ko ba dugal ko ci biir bàmmeel neena ya. radina bihi sayxan neena ya. man dal nanguna naa gërëm babakar sëriñ ci sama sëriñ wa ah, mun nak ila ila ad-dahr ba mu jug jamono benen haram bi ci top moy lam mu def ca liman antami in lam yakun bi janabihi liman aqtadi in lam yakun bi abi bakrin sëriñ Cheikh neena liman antami ana ci kan laay askanoote di dem ci moom in lam yakun bi janaabihi bu nekkul ci wetu sëriñ Babacar si nee na ma ko miine woon daan nekk ci wetam nee ana fan laay demee ne tey ci kan di fa askanoo waaye yëmu ca mu ni in bi man aqtadi in lam yakun bi abi bakrin nee ana kan laay dem di royati ci moom ku dul sëriñ Babacar si وجل خالون كويتا حلالك جو القلب يا طير حبه فبيدي بطير واسفري أزعد الطير ينا خلاوتنا لك يلا جو القلب سما قلبي جو جنينا يوسف بابا كرا ما نام دنكي ويت أول كلين كما لك بوليل يا طير حبه yow piccum cofeelum sopp Serigne Babacar Sy nee na ko da ngay wéet ci sama xol cofeel gi nga ci am amul keneen ku ko ci am waaye fa bii di bi xayrin nee na sama xol boobu maanaam fa bii di bi xayrin nee na nang fi nen nen yoo xamante ne nenu yiw rek lay doon waaye was ciri nang sab am ñu ne tos kon ba tey asaada tayri yow picc mi nga xamante ni yaa gën a texe ci picc yi yaa asaada tayri la wan waaye ñu xasaf yaa aw ni daa gi ndax loolu waaye tax mu ne asaada tayri mu jëlaat laam gi ca topp ne latifun bina fi nafsi war ruuxi zikruhu wa an taku minhu fihi ma nuktatu zikri seen seex nee na latifun bina nee na day neex day neex ci ñun torop nee na zikruhu boo ñu tuddal seen Babacar ولا يحتمم سنتي غنا لا يحتم يطرب من أكو تفعل لا يحمون في النفس تسمى خل بعد أن النفس دين يفري مكان لا يدين في من خل يفري والروح أقصد الروح لأن أبوي تدرس بابكر لأن سن خل أقصد الروح لا يحترب طرب طرب وعندنا ولا تفهم منه waaw maanaam neexaay gi day gën a dina ëpp fii ma janaaru yooyu nottatu sikkir nee na bu ñuy fàttaliku ay jeexitam nee na nag sëñ baa nee na coxeel ga ca lay ëppe nag mu jëlaat gaa gi ñi yazidu alayna ahzatan wa huwa xaaibun fakrim bihi min xaaibin wa huwa fi lxijri waaw nee na nee na loolu mooy tudd li ñuy tudd sëñ Babacar nee na muy neex ci suñ xol di neex ci suñ ruu nee na yasidu alayna ahsatan nee day tax ñu gën a ngëpp ci sëñ Babacar gën a jàpp ci moom gën koo fonkaat bu baax a baax te waxuwa moom kër sëñ Babacar xaayib dafa fàtte nekku fi sax waaye sëñ Cheikh nee na fa akrim bii nee na yéemul ak tedd nga min xaayibin ci xamante ni waxuma fil xijri mi ci saal bi waaw wax nañ ni keroog mu yooxu am wax ju wax léegi nee nañ sëñ Babacar ne ko bul waxati loolu sëñ sëñ Seex ne ko bul waxati loolu mais kii buñ ko dugalee ci bàmmeel ba noppi ba dikkaat dañuy bokk ak moom ci saal bi toog mu jël taay ni fatana aasa fani ni fatana aasa mahmudan wa naata muhammadan fa fi xaalatin yahdi wa fi xaalatin yaqri nee na sëñ Babacar fatan nit la koo xamante ne aasa mahmudan maanaam dundam gépp maanaam dund bu rafet la dund bu sant la waaye wa maata muhammadan ne bi mu génnee àdduna fa tabaarakallaahu ñëpp fa sant ak dundam di ko waxtaane waaye sëñ Cheikh ne la sëñ Babacar nag musta libre musta libre maanaam musta am temps fu mu yàq temps fa muy xaalatil yëg lii wa fi xaalatil yàqar yi nee na léegi-léegi boo dikkee ci leen ci leen ko koy fekk mooy muy gindi nit ñi di leen jàngal seen diine di leen jàngal seen tariixa di leen gën a delloo ci borom bi subhaanahu wa taala nee na léegi-léegi boo dikkee sëñ Babacar boo dikkee sëñ Babacar koy fekk waaye nag wa fi xaalatin yàqoo yi nee na léegi-léegi nag boo ko dikkee nag fekkoon nag nee na li muy def mooy di berde nit ñi di jox nit ñi aw ñam gis nga dafa aw ñam ku la ko dàq rek raw na la waaw berde ku la ko dàq rek fa tabarakallahu raw na la fekk nit ku xiif nga berndeel ko loolu la ci nekk ca aw kenn xamul lu mu toll Cheikh nee na nga fekk ku xiif nee na nga jox ko benn tib mu lekk ko nee na nga tabax jumaa yaa ko ëpp aw kon joxaaw ñam li ci nekk ci aw yu kenn xamul lu mu sëñ Seex bi mu jëlee taaga mu ni tarabba ala haatayni irsan wa nashatan kariman waaye wa fi haatayni ramsun min a nee na sëñ Babacar la tarabba dafa màggee dafa gimmee ala haatayni ci ñaar yi mu la wax mooy di jàngal nit seen wàllu diine ak leen berndeel nee loolu daal ci la juddu yaru ci daf koo dond waaye wa nasatan tamit da ciy ba màggante moom sëñ Babacar waaye nee na kariman nag muy ko tedd nee na nag wa fii haatayni ramsun min as-sirri nee na ñaar yi daal ca mooy di nit ñi seen diine ak di leen maanaam bendeel loolu ab junj lay wane boo xamante ne am na secret bu ci nekk. waaye yéemu te de mu ne aqillaaya in ahsantum xayra wuslihi fa duunakum aadi wa duunakum wisli nee na yéen samay xarit. in ahsantum bu fekkee da ngeen a rafetlu da ngeen a rafetlu ne xayra huslihi maanaam da ngeen a rafetlu maanaam leneen lu dul jokk sëñ Babacar nee na fa duunakum ahdi nee na sama kóllëre ak yéen dagg naa ko wa duunakum wisri sama bu mu cofee ak yéen dagg naa ko waaw moom seen seen waxat na ni man bu ma am xarit boo xamante ne noonu sëriñ Babacar si lay doon وعيننا بلاء على اهل الطريقه سقطه بخول من الحبر الذي اعظم الحبر لان مصاب لا معنى ممكن ان تريح بين يونيو سيد بابا كرسي لان لان من كل ذلك فوري ومكبوغ من دين موغنا مكبوغ فوري يبقى مسيرين عن يونيو ولنا وقانا به الرحمن قيد عدونا ونجى به الاسباب من قدر الشر لنا وقانا يلا فقلنا rahmaana yàlla kay daa du winaa sunu pexeb noonu bi ci barkeb Sëriñ Babacar Si waaye nee na wana jaabihil astaaba min xabdati charri nee na yàlla nañu yàlla musal ci awaay ak musiba ci barke Sëriñ Babacar Si waaye nag mu ni bi ahmadi bil mahmudi bil xatmi bir rida wa bil mustafa bil muntaqa bil hudal badri mu ne nii maa ngi koy ñaan ci barkam yonente bi salaa sallam bi ahmada bil mahmudi bil xatmi ki nga xamante ne moom mottali yonent yëpp ar rada ku ñu gërëm ko wa bil mustafa bil muntaha yooyu yëpp ci tënk yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mooy ku tànn ki bil huda ci ki xamante ni jëm jub la waaye al badri ki xamante ne mooy li weer wi nga xamante ni bindikee moo gindi ñëpp waaye Serigne Cheikh yi mu ne mu kafaana libaasal xayri an kaana ahaduhu ladayna saniyan fii libaasin min al nee na ñun daal sëñ Babacar daal doy nañu sëkk daal maanaam mu nekk suñu mbalaanum sutura ci bi nga xamante ni maanaam jamonoom moom sëñ Babacar nee na sa liyan jamono sëñ Babacar jamonoom jamono dafa muuñ dafa bëgg ci sëñ Babacar mu ne nag sëñ Babacar raba rama fa asaaba shayba kulla isaabatin falam yabqa illa an nuqaatala bi sukuri waaye nee na sëñ Babacar dafa sànni te nee na nag bi mu sànnee mooy lépp luy aw yiw nee na sëñ Babacar indil nañu ko nag kon ñun la ci ñun nee nag mooy ñu sant ko waaye yi mu tëdd mu ne samaaxatuhu tuxni l an nadan wa rafatuhu bil muminina ala cheyri nee na samaaxatuhu nee na tamit sëriñ Babacar Sy nee na tux yi doy na sëkk ak murid yi na taalibe an nadan maanaam ci ab taw xam nga taw lu ko gën a tabee amul fenn waaw ab taw dafa tabe ndax bu tab bu tabee àll bi day naat gis na maam borom Tuubaa ba muy woy yonente bi daf ko ne fal xaysu min sakk bi juudil barri fal xaysu min sakk bi juudil barri zu xajalin walay su qaabin li xawfin minu farraaru waaw nee na yonente bi bu buy mayee nee na ab taw da taw day rus ndax nee na day xam ne tey gis na ku ko gën a tabe loolu nag jikko la boo xamante ni Seex Seydina Abu Bakar mi ngi ko doon de ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag wa rafatuhu bil muminina ala cheyri nee na ñeewante gi am ci ñu gëm ni moom sëñ Babacar nee na da leen di sëkk ba duñ tële jéggi dem fenn yaminaka laa ansa yaminaka daiman abal fadli maa lii xayru sikrika min sikri nee ko keroog bi nga tëyee sama loxo yow bàyyi di ma jox tarixa bi nee na ko fàtte mukk yow mi nga xamante ni abal fadli yaay jëmmi ngëneel waaye nag maa lii xayru sikrika min sik maa lii xayru sikrika min sikri amul kenn kenn koo xamante ne dinaay toog benn minute wala benn seconde di ko fàttaliku ku dul yow kon bu ko defee yal nañu ko borom bi subhaanahu wa taala fayal kooku mooy Seydi Abu Bakar Si dundam gépp ci jaamu borom bi subhaanahu la ko jeexal waaw Serigne Cheikh nee na keroog bi sëñ Babacar Si génnee àdduna nee na bañ waajal ko ba teg ko ci jàng ba dara su dudul yóbbu ko sa dugal ko ci biir suuf sëñ Cheikh nee na xul keroog xoli jaam ñëpp ñëpp a gëlëm kenn xamul mooy def waaye nag fa tabaarakallaahu loo xamante ne bu fi yonent bu kenn kon bu ko defee ñoo ngi gërëm ñëpp fa tabaarakallaahu di am mbégte di am kontaante bu baax a baax bu ko defee jotaay bi ñoo ngi ñaan yàlla ko borom subhanahu wa taala nangu jotaay bi yàlla bu nekk performant comme niñ ko waxee woon mboolem tànk bu fi waaye ñëwee yàlla ko borom subhanahu wa taala def muy aw yiw def ko muy faruk bàkkaar def ko muy darajaat ci àjjana yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal am nañ mbégte am nañ kontaante bu baax a baax ndax fa tabaarakallah wootee ñu wuy si la loolu maanaam dafa neex waaw wootee ñu wuy si la nit ñi dikk programme bépp ñu ànd kook yow ñi mën a jàpp ci liggéey ba dem di ca jàpp di ca nekk ñepp tok di deglu lolé nek na lo xamné lu rafet la yalla ko borom subhanahu wa ta'ala jëmele kanam jere ngeen def wa salaamu alaykum wa rahmatullah barakallah Ya Allah, moy top wa xam ko da nañ bi continuer parce que c'est waaw lii ñëw rek da leen seedeel cant jëm ci association bu Thiès ñu naan ASPT te suñu nag seen mbay xam jote ko ñu ngi koy sant bu baax a baax ak mbokk yi mën na dal da dalee teg vice président dafa soxna Fatou Sarr ak secrétaire général ñu leen sant bu baax a baax di leen gërëm ci taxawaay organisation bi ba ñu xëyee ba léegi kenn ëpp leen ci dañ ko jot di gërëm tamit association Sud Kajoor ci participation bi ak taxawaay bi te sëñ Cheikh Niang jiite ko dëgg bi daaw bi ñu def journée bi ñoom ñoo ko ànd ba mu jeex ñoom it kon bi ñu santee daayira yi gërëm leen ñoom tamit ñu sant leen gërëm leen li may wax nag firnde bi mooy association bi yàlla dafa doxal mooy rek juróom-ñetti at jox ko sunu sëñ Mbay daaw bi ñu def suñu médaille bi ñu doon def ci football di ci fàttali suñu ay mbokk lii ma sol ñoom ñoo ko jënd jox ma ko décoré ma ko loolu nag firndeel la ci ni am na taxawaay yu amoon solo yu am ci Sénégal yi kon dañ leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan yàlla dimbale leen li ñu yéene ci Sénégal yëpp dina dem ba àgg ci asalaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. mbokk yi ñu leen di leen ziara di leen baal di leen baal. ñu jëtal si nuyoo bi président Baye di seen Habib Ba ak seen Mamadou Diop ak ma àndal yëpp. ñu xaj di kenn bay di ko ziara. moo suñ baba mu ngi si ak ak xam-xam yi te moom waxtaan sax ñaan yàlla yàlla yàlla defee ñu jàmm ñun nag wax xëy na yàlla fii am ñu ni kàkkat dañu ñëw rek ànd ak waa Thiès bokk ak ñoom ñu si ñu tataan tataan si Babacar si daal yàlla taala ñaan yàlla yàlla yàgg def yàgg ko fekkee di encouragé xale yi di leen seen taxawaay yàlla yàlla jàppale leen yàlla yàlla jàppale leen ñu gën a encouragé fu ñu dem rek gis seen taxawaay yàlla yàlla def ay mag wax dëgg yàlla suñu xel dal na yàlla yàlla jàppale leen ba ngeen ba ba ñoom ñëpp suuf bi mu réer ngeen bëgg ak yàlla ngeen ngeen wax ak yàlla sallallahu alayhi wa sallam sa waaw. loolu ëpp naa la ñu ñëw ak. ndax dafa dogal. bi ma nekkee Paris ma jokkoo ak moom. ah. mu def ci lu rëy mu Pape Dieng. te mooy sama dëkk wetu ñu jël ko en charge nit bu defee lu baax aussi war nga ko wax uniquement pour ñu mën a réussir ndax maanaam ci da tudd bi taxawi affaire bi moom mu changé waat lépp ba mën a ñëw bi mu ne damay ñëwit continuer ci comme ni ñu ko waxee woon docteur Khalifa Cissé dinañu ko bokk ci COSCAS France fa nekkoon moo ngi nii bu wax waa Italie ñu la daggal la biir waaye moom ci boppam moom la dagg biir bi te boobu nag moom ma ñëw fii te wax la ñi sëy solo ma li leen coon laaj leen ne leen nangam nangam docteur Fallou Cissé ñëw nañ ba ci sa aéroport sax mu fayat ci avion ba bagage yi xam ngeen ñoom rayu leer ak ñee rek yaakaar yooyu ñu jàpp ci ñëpp bañ a teew loolu il faut si suñu ñëpp ndax ñu ko la defal nga gi jàpp ci mbir taxaw na loolu nag France da dëgg yàlla yóbbu ñu ci docteur yi te mu docteur la sax xaw ñu ci biir ko fay fukki seen jërëm yëpp seen rek bu vélo waaye mu tar oto on a fait presque deux heures et demie loolu nag dinaa ko seedeel waa daayira bi seedeel ko waa italien yàlla yàlla fayal yàlla taxaw ko

fa mu jógee dafa sori ca Rimini xam ngeen ni du fi cinq heures du matin la fa jóge yegg si onze xam nga loolu yàgg na te uniquement rek pour ñëw jàpp ci liggéey bi Omar moom kazaalika jóge ba Padova ñoom ñëpp kenn mayu ci woon jàmm nag waaw bi ma nekkee Paris bu ma xëyee rek ñu woo ma ah ñëwal de ñëwal de loo jàppoon ko bàyyi ma leen incha allah loolu yëpp rek ngir pas-pas nit ñi bu ñu defee yenn sacrifice yi wax ko wàññiwul dara ndax day sawarloo ki tàyyeloo kenn yàlla taxawu leen. ah su ko defee daanaka. xanaa ñu woy benn woy rek ñaan. Jamil sax moom borsa da ko jox ah waaw nee na heure bi weesu na sax. su ko defee ah ñu tëjee ko ki ngeen tudd takkusaan gi waxtaan yëpp macha allah. wilaan Pape Wilane hmm? macha allah déglu naa la bu baax la dégg bu baax xam ni kër gi la ba jeex waaw surtout maam Marie Wilane ah loolu laa xarwa ak góor gi Ablaye Wilane ak góor gi Malick Wilane sa maam ñëpp tabaarakallaahu lii mooy dundal xadara bi mooy dundal pas-pas li mag ñi bind ñu ci waxtaan loolu mooy dundal pas-pas te macha allah yàlla yàlla taxawu leen ci biir ci biti. ba yaa nu doy. bayaanu doy ku nekk sañ na ko ah. bakka rek dara man yaanu doy doo seen moroom bayaanu doy bayaanu doy Seydi Aboubacar bakka dara man yaa ngi baax doo seen jëfe ngay soloom doo seen moroom wane nga ay meloom jëfe nga ay soloom doo seen moroom wane nga ay meloom jëfe nga ay soloom doo seen moroom bay lislaam bi yaay ki ko yor tariqa bi yaa ko yor hmm. bu ñu yàq yëngoom jëfoo meloom doo seen moroom mbayaanu doy mbayaanu lu doy Seydi Aboubacar Bakari Karaman yaa du doy doo seen morom. ay l'islam bi ay ki ko yor tariixa bi yaa ko yor. duniya ak yëngoom jëfe yoo. lu meloom doo seen morom. waay mboolem ku baax. waay jëfsul la bàyyi ma yi nii ci xalifa mboolem ku baax. waay jëfsul la bàyyi ma yi ci waaw. diwaan mboolem ku baax. waay jëfsul la bàyyi ma yi. yonent waaw des mboolem ku baax ma jox si la bàyyi mbalit waaw des mboolem ku baax ma jox si la bàyyi mbalit waaw bu nu war ndama ak Fass Madina Joof ni Room mbayaanu doy mbayaanu doy Seydi Aboubacar Bakari Daraman yaanu doy doo seen morom mboolem ku baax ak jëfsil na bàyyi mbay Tiwaawoon bu nu war Makka ak Faas Madina jooniroo Makka ak Faas fa Cheikh ah. Tijaan Sérif jaaxaan ndigal ya fa ñoom nga yor doo seen moroom doy mbayaanu doy Sidi Abubakar bakari dara man yaa nu doy doo seen morom. way Makka Madina afas fa Seex Tijaan Sërif. yaxal ndigal ya fa ñoom nga yor doo seen morom. way ña leen di jël. man lislaam tariixa bi am na yoon. ku ko mooy te yeesu si woo ci ngay daa mbayaanu doy sidi Abubakar bakari taraman yaanu doy dooseel morom ma ñaan leen digal islaam tariixa bi am na yoon ko mooy teyees ru siwoo ci mbay daa tooñ borom waay mbay seedi tooñ ma ne mbay leen badar bay mooy yi gëm xaloor bu dammee sax si war doy mbay sa borom ngaa fi tukkal bu ko maam sëfee def ñay morom daje bay nurug gay ndee janax doo seen morom nan yow xam ni bur laaw mooy seet ay mbiram yebal koru bu ko neex ne leen mbay doo morom bay qutbul wara mooy xawsul ola bunu maan xalifa qutbul wara mooy xawsul ma ngeen ndaw ñeek ah. góor ak jigéen ku ci ci sopp Ababakar ñu ko taxaw ñu màggal xudul war mooy xaslu laa dina maalugu mag ñeen ndaw ñi góor ak jigéen yéen ñëpp ne la ni seen loxo yi ci xalifay wara xaslu laa dina maalugu say mbir te yaakaar say gëneel doo seen morom mooy docteur baatin bi yaay wéral xol yi ak yaay docteur baatin fa yaay wéral xol yi ak yeneen saadateur ba xalifa yaay wéral xol yi ak yeneen saadateur ba xalifa yaay wéral xol yi ak yeneen fa dem ziyaar dootoo fa gëj goo seen morom fa dem ba ñaan dootoo fa gëj goo seen morom central dina moo di maa ko yor ku si taal bala lampam sunaa goo dal di fay doo seen morom sunu daayira mooy mandarga taru cere ku taru jëfe nu manki rappel na dem si yaare gi mbay loro yàlla nee na Mamadu Abdalaay doo seen moro nabi nee na Cheikh Tidiane Serif doo seen moro Cheikh nee na Maodo yaa ma yaa ma doy doo seen moro Abdu nee na Mansour yaa ma doy doo Cheikh Tidiane si maktoom yaa ma doy doo seen morom Abdul Aziz yaanu doy doo seen morom Babacar Si Mansour yaanu doy doo seen morom Serigne Babacar Si Dabakh yaanu doy doo seen morom Babacar Si Abdou yaanu doy doo seen morom Seydi Jamil Thiafass yaanu doy doo seen morom jëfandu leen ci lay jëfandu raw ci mbay jëfandu raw ci lay jëfandu raw ci mbay xutbu baa ngi nii xalifa Babacar Si بانجي بالله خليفة بابكر فرد جابي بالله خليفة بابكر جفن لم بالله خليفة روشن باي جفن لم بالله جفن روشن باي سنو باي عبدو نهد جفن روشن باي خليفة بابكر جفن روشن باي يوم دين كان بالله جفن روشن باي مودي ديني بالله جفن روشن باي الطريق بي جفن روشن باي فانكم ميتي بالله جفن روشن باي فانك داري wallaay jëdu raw ci mbay dem ziyaare mbay ziyaare général ziyaare mbay jëdu raw ci mbay yaare général bi yaa ci may jafandu raw ci may pote ba baa ngi nii xawal su bee di seesi Abubakar bakare darama yaa nu doy doo seen morom xutu bu baa ngi nii xawal su bee di seesi Abubakar بكر كرم نديد حسين مرام إلي تتأل الأسابع السرعة اليمين تابعة محمد خير البرية أتى دينك خدع له كل فتى قدم جميع الأنبياء ورسل خير تقلت خيائي برجما برجم انتباهي ويا أرجو إلى الأساطير أرى ورب العرش ما يراه كذا من الأنوار ما يشاء ربي رسولك النبي الأمي صل عليه شافع القدير دم بشير ومباشر نذير وتعير مطهر بدر منير ياسين طه حشر وعاقب ومختفي منجر وناد أجب لنا بجايبانك العظيم عين النار النعيم وصراط المستقيم لطيف يا مصفاء المرادة لك ذا المراد خير سهرادة على المقاف سيدي ساداتي صلوا وسلوا يفرحباتي أمما إيسلي يا رب الخلاق فنجي مولاي من شر الخلاق يدعوك من يرتب الحروف من صلاة الفاتح دعاء الخليل متمدا بعينك الكريم وتمخسته بفم محزوني صل على سيد بالمراء سلم على ذي الشرع والجهاد وآلي وصحبه المنتخبين الراكعين ساجدين المهتدين الحمد لله الذي قد أوجد آمين بكل ما أعدمه بأحمد آمين ربي فلا يسأل عما يفعل آمين ونحن مسؤولون عما نفعل آمين يا فاتح الأبواب يا دليل آمين لكل عبد جاء تذهيل آمين يا قاسم الأرزاق يا مسبب آمين لكل أسباب ويا مقلب آمين أنت الذي خلقت في السماء آمين والأرض يا علي من الأسماء آمين فجد لنا ذريعة لسيدي آمين مند كل أولياء وسندي آمين لا تقطع عن عمن به قد قبض آمين وكان لطريق ربي عرضا آمين فلتكفحن عنا بكل بطل آمين ولا تؤاخذن بسوء عملي آمين تعلم ما جرى من الأنفاس آمين الجن والناس معا ناس ناسي علمت ما علمت ما علمت آمين وما علمت غير ما علمت آمين علمت ما علمت ما علمت آمين وما علمت غير ما علمت آمين علمت ما علمت ما علمت آمين وما علمت غير ما علمت آمين وربما تسجر في ما تعلم آمين بعالم فضل ما يعلم آمين إني أتيتك علي معتذرا في ظاهر وباطن مقتصرا فأنت يا إلهي يا مجيب أجب بيتك يا رقيب فاغفر إلهي ربي والدينا مغفرة الإطلاق فائزين آمين يوم يفر المرء من أخيه آمين وأمه صاحبة بنيه آمين ثم أبي شأنه يغنيه آمين غفرانك اللهم قد يليه آمين ثم صلاتك التي تجلت آمين بسر أسرارك قد تحلت آمين على النبي أشرف الخلائق آمين مع سلامك المجيد الفائق آمين وآلي وصحبي الكرام آمين واعطنا يا رب آمين واعطنا يا رب آمين واعطنا يا رب آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق آمين.